الله أكبر ما كان لمؤمن ولا مؤمنة ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ومن يعص الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق الله العظيم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi tedd yi ginnaaw bu ñu leen nuyoo ziar leen nu ngi ànd ak yéen fii ci kër Serigne Abdoulaye Tagué ci taxawaayu màggal gi waaye nag ci jëwriñ jii fi ne muy soxna Mominatou Kébé mbir mi dafay dem ba ñoom dañ ko daan bañ waaye nag dootul mën a nekk ñu di ko bañ ndax ku ne la am te kenn ku ne la nga am rek nga koy indil te yàlla sunu borom bi muy may sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam dem ba ni ko wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis li ma la may nag na ko wane ndax ñu xam ñu xam may kan Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul mii ku xool li mu indi woon bu ko neexan yemale ko ci bokkam mbaamu mu yemale ko ci waa kër maaram waaye dafa woo addina bi yëpp ni leen kaay leen xool li ma yàlla may jar naa wane sunu maam Seex Samba Jaara Mbay way ko Sëriñ Tubaa ni danaa biral tuuti ci ay mayam ci man yu ñu ma may te yi may ku ñu ko may war naa gërëm diiru dundam moo tax lii nu def ak cant la wane ko yàqu ci dara parce que wane lu baax ginnaaw ñu bon ñu bon ñu lu bon rek la ñuy wane tey bëgg mu siiw télé yeeg yëpp di leen wuti boo amee sa lu baax da nga koy wane te yàlla ne ne képp ku wane lu baax benn yoon nit xool ko roy la ca yàlla ne ne dinaa la fay te bu ma fayee nit ka am nga cab xaaj kon sëñ Ablaye lii nga def soxna moom lii nga def jëf ju rëy la ñi ko man bariwut bari na ñu bari teraanga lool ci réew mi te kenn du dugg seenum néeg kenn du dugg ci seenu saal kenn du leen taxaw du nu siggi sax di xool nit te teraanga ji li muy bari bari fi ko ni ñi bàyyi ana ki fi nekkoon Cheikh Sidi Makhtar daaw la ko yàlla mayen ci daraja bari na lool la ko yàlla mayen ci baatin bari na lool la yàlla mayen ci alal bari na lool tey ma ngi nii bàyyi nu fi dem bàyyi nu ak Cheikh Mouhamadou Mountakha kon li fi jar tiitaru li fi jar aju li fi jar jaay ko te joxoo ko jàmm ñi yàq la ci lislaam kenn ku ne xam na ni Seydina Ousmane bun afan mi nga xam ni Serigne Touba ko woy wayam wa yàlla ci boppam moo ni mënatu la def lu ma naqari ñu ni lu tax mu ni alalam jépp la xaaj jox ko jullit yi sëñ Touba ni wa fii xaala nabi Ousmane yasfahu fii sab'ina alfan wa kullul xaq hoo naaru Serigne Touba nee na dana jël dana dem sawara dajjee fa juróom-ñaar fukki junniy góor yoo xam ne sawara da leen a lekkoon andi leen aljana ci jëf ju baax jooju mu daan jëf mooy jël alalam di ko jox jaam ñi sëñ Ablaye mii nag lépp lu waay mën a wax ci moom lu dul moo baax yàq nga ko man dama nekk ak moom ci màkka foofu lay tëje am kenn ku ma nekkal ci politique sain politique sain Sénégal yi ma fekk leen ci hôtel bi ci montre bi soxna moom mi wàcc ci suuf def tànki neen jël si ma mag góor a jeey bi nu ñëwee ba dugg bay dem ma dugg nuyu politicien boobu sama xarit la mook soxnaam bi ma duggee ma ni ko dama am ku ma doon seet ci néeg bii mu ni ma kan la ma ni ko sëñ Ablaye Taga lañ koy wax ak soxna moom yi ñoo ne ci néeg bii kooka ni ma man de kooku xaw ma ko waaye ki ma gis dafa mel ni moom yi moom xàmmee naa ko waaye ku góor ki mu àndal kan la ki may jullee kan la ma ni ko mooy borom këram mu ne ma sëñ Ndiaga dama koo bëgg a bëgg a bëgg ba buy julli ji damay ñëw toog ci wetam te xaw ma ko. ma ne ko noo ko bëggee mu ne ma dama ko ni jàkk rek sopp ko te xaw ma lu tax ma sopp ko. man li ma déranger bëriwul parce que bu dee milliard bu dee alal dama koy am Seydouna Mohamed laa andal Cheikh Bambay sama sëriñ Cheikh Sadji la mooy sama maam. li may de li may yëngal ci nit loolu leneen la. mooy nit koo xamee ni ku la ni jàkk bëgg la ndax taar bi la yàlla def ak sell gi nga sell ak bëgg gi Serigne Touba te doo tricher. soxna moom yi laa ni mel na noonu soxna moom yi jar na loolu soxna moom yi fit yu mu am ak ñeme gu mu am ak li mu ñeme ci xaalisam kenn ñeme wu.